li nga xam ne moom mooy li ni mel on s'attend plus ci ay pic ay sànnante xeer moom la ñu gën a gis ci li nga xam mooy campagne électorale bi. waaw campagne bi vous savez euh, communication ah yaa ngi nekk ci journalisme xam nga souvent ni ñuy tasaare donc euh, xibaar euh, ñoom ñi ñëw ci euh, élection bi yëpp am nañu programme. kenn ku ci nekk am nga programme. peut-être programme bi dafay gën a taxaw réalisable faisable. mu mbaa dëppoo ak euh, li nga xamante ne moom la askan wi di xaar euh, beneen bi ci topp moom mooy kiy wax parce que programme bi bind nañu ko ba pare mais kiy wax naka lay def ba nit ñi dégg ko comprendre ko bu fekkente ne lu mel noonu la euh, effectivement ñiy dem di xumbal di def animation bi accompagner ñooñu mm-hmm. mun nañoo bañ suivre sax ki nga xamante ne moom la ñuy topp lan lay wax mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo yittewoo programme dañuy liir li nit ñi bind ku mel nii man je suis obligé boo ma waxee ne dama laa bëgg a jiite dinaa la wax loo may proposé ak lan nga war a mën a def loolu boo ko liiree quand même euh, je suis désolé wax naa léegi na nit ñi déglu ak xel bañ a dégloo xol mm. mais campagne bi xel balaa campagne bi di commencer dafa am ay candidats yoo xamante ne information bi dafa leen a éliminer pratiquement boo jëlee les candidats ñaari candidats kese ñoom ñoo ubale campagne bi cest dire que ñoom la ñuy tudd guddi ak bëccëg duñu tudd ñeneen ñi muy le candidat bi nga xamante ne moom mooy candidat wu pouvoir bi. Mm-hmm. Amadou Ba qui est de loin le favori donc de cette euh, élection là Bassirou Diomaye Faye mhm. dañu ko def dañu dañu ko def campagne ñaari nit alors que am na yeneen euh, fukki nit ak juróom-ñaar yoo xamante ne mhm. ñu ngi ci biir langue bi donc lépp loo xamante ni euh, communication la aussi mhm. ñële dañu ko bëgg a def waxu xaste cest dire que sosal nit ki jiiñ ko euh, sàcc wax ci moom wax yu bon mais quand heureusement heureusement du côté de Amadou Ba moom mu ngi fenantal loolu c'est-à-dire que da ci mën na cee tudd lu tuuti mais après moom dafay dem ci li nga xamante ne moom la nit ñi di xaar moom mooy moyen de communication à partir de la maintenant euh, question bi ñu war a posé wu mooy est-ce que sénégalais dafay voter sur la base du programme ou bien dafay voter sur la va sur la base donc de la face de l'individu de la face c'est un vote de faciès mm. ou bien c'est un vote programmatique et au Sénégal malheureusement nit ñi voté wuñu pour programme mais dañuy voter pour face pour face donc loolu noonu tamit c'est une question boo xam ne ni war nañ ko mën a poser parce que yaa ngi koy wax de tes de tes propos sénégalais li nga xam moom mooy Mumbai bi mais ñeneen ñi dañuy xool exactement lan la candidat bi proposé mais boo xoolee ci ñaari masse de personnes yooyu noonu ñan ñoo gën a ñan ñoo gën a bëri cest à ñi nga xam ne dañuy xool programme xool exactement li nga xam ne moom la candidat bi proposé wala ñi nga xam ne dañuy topp nit pour Fass wala pour Xumbaay beeg Mumbai bi est-ce que waruñu xam exactement fan la masse bi gën a bëree aussi. oui de toutes les façon masse bi mu ngi gën a bëri ci ñi nga xamante ne dañu naan diw laa àndal. diw laa àndal parce que diw diw laa àndal parce que moo ma neex diw laa àndal parce que foofu laa bokk boo ko laajoon waa ji lan la nas pour réew mi mënu la ko wax loolu moom moo ëpp parce que aussi dafa caractéristique de notre société mm-hmm. société bu nga xamante ne ñi jàng école bariwuñu mbaa ñi jàng école yëpp ñi ci yegg niveau boo xamante ne war nañoo mën a décortiquer programme bariwuñu donc société boobu effectivement dafay def une identification de faciès diw moom ma neex moom lay àndal ainsi de loolu moom moo tax les programme ngay dégg nii nii nii nii demal fu la neex nga laaj nit ñi diw lan mooy programme am amul les pôles de communication ñoom ñoo am na responsabilité wu di jël loolu di ko faram-fàccee di ko yóbbu foo xamante ne ci réseaux sociaux yi par exemple ak télévision yi dans le cadre des débats lii may def pour expliquer nit ñi diw lan la mars ci lii ak lii mais bu fekkente ne mars bi la rek. Mm-hmm. non non non seen yoon nekkul ci. est-ce que est-ce la ci li nga xam ne mooy suñu question d'origine bi. Mm-hmm. sànnante pic yi nga xam ne moom la ñu nekkee donc est donc mënuñu jàpp ne vraiment conditionner li nga xam ne moom mooy moom mooy la campagne électorale ku nekk di sànni sa morom ay pic je que pour vraiment euh, masse bi topp la ci li nga xam ne moom mooy li ni mel il joue dans l'émotionnel mais dañuy jouer ci émotionnel non seulement dañuy jouer ci émotionnel mais rusu ñu wax lu dul dëgg hmm. da ngay gis ku jàkkaarloo ak sa moroomu gor nga ne ko sàcc nga par exemple wax jooju dafa rëy wax jooju dafa rëy. moog nga jàkkaarloo ak sa moroomu gor ne ko yaa rew yaa rey diw. te gisuñu diw de gisuñu diw rey moo yem mooy tuuma bi. mais dañu jàpp ne aussi am na ñoo xamante ne pour nga mën leen a am doo leen wax yow li nga leen di yéene mais da ngay yàq ki nga xamante ne moom nga jàkkaarloo. looloo tax euh, sport de combat. dafa am mérite. parce que bu bu ngeen di signer seen contrat lu leen neex mun ngeen koo wax. mais après ñëpp ay génn géew bi. Mm-hmm. seetaan leen yéen ñaar. ça veut que loo waxoon nit ki te nekkul dëgg bu ngeen duggee ci biir géew bi dafay feeñ. Mm-hmm. li nga waxoon nit ki mu nekk dëgg aussi bu ngeen nekkee ci biir géew bi dafay feeñ. Mm-hmm. léegi nag bu fekkente ne yow da nga jàpp ne nit ki jaaxal na ma ëpp na ma doole ci côté bu nekk lan laa war a mën a def donc dama koy yàq. c'est un couteau à double c'est-à-dire que arme la bu nit ñi di utiliser en général par exemple basiru Diomaye Faye mu ngi koy utiliser contre amadu Ba mais li mu xamul mooy que loolu muy wax mun na yokk amadu Ba ay nit parce que bu fekkente ne da ngay da ngeen di wootee kilifteef dama leen war a jiite dañu naan ki ma war a jiite naka la war a mel mm-hmm. ñu ni suñu mbokk suñu magu diine yi dañu koy wax toujours mm-hmm. kilifa dafa mën dafa war di néew lu muy wax mm-hmm. kilifa dafa war di heure bu waxee mu nekk njëriñ kilifa dafa war di jëlale day fenantal kilifa dañu koy tooñ mu bàyyi yow nga sëgg ci deru doomu aadama bu nga xamante ne buñ la tegalee kaamil ne waatal li nga wax doo ko waat boo wéetee di ko sosal di ko di ko yàq boo xalaatee ne yaa ngi defaral sa bopp yaa ngi nax sa bopp parce que ñi nekk ci biir kër yi tey xaar ki leen war a jiite ëllëg dinañu ne kii nga xamante ne sosalaate ak wax lu bon moom mooy jikkoom moom mooy liggéeyam kii kenn mënu mënu ko def kilifa politique voilà politique moo ni politique moo ni mel professeur léegi nag politique bu melee noonu aussi dafa am looy sóoraale dafa am looy sóoraale li ngay sóoraale moom mooy yow yaa ngi jéem a yàq nit mais naka lañ lay gisee yow mi nga xamante ne yow yaa yàq nit est-ce que man dinaa jiital koo xamante ne óor bu taxawee lu bon lay wax ci nit ou bien damay jiital ki nga xamante ne yow bu la xamanee lu bon buñ ko ko laajee sax du ko wax. ñu delluwaat ci li nga xam ne moom mooy moom dinaa ñëwaat un peu professeur ci ci ci parce que je pense que dinañ ñëwaat un peu patrimoine bi tey jii nii candidat bi mi ngi koy wax mu dem defi keneen ki mi ngi koy wax mu defi mais boo xoolee loi bi li nga xam ne moom la je pense que les candidats aux élections présidentielles ne sont pas soumis à cette règle aussi. waaw euh, déclaration de patrimoine d'abord comme ci wolof la wax. Mm-hmm. moom mooy pour da nga war a jiite dara nit ñi dañuy wax ne da nga war a wax nit ñi ñaata nga am ci loo xamante ne yaa ko moom ci loo xamante ne nit ko bokk ci loo xamante ni yaa ko moom waaye sax tayle nga ko parce que alal boo ko moomee mun nga ko tayle c'est-à-dire boo fayee bor di ko jotaat boo fayul bor mun nga ko bañ a jotaat même alal jooju noonu dañ lay wax nga déclarer nga leeral ko boo bokkee ci feneen foo xamante ne war nga fa am leneen loo xamante ne daf lay jural xaalis aussi war nga ko wax li tax ñuy wax loolu nag mooy que dañu ne ki nga xamante ne vraiment dañ ko war a dénk suñu alal dafa doon koo xamante ne ñun war nañoo xam ñaata la am parce que dañ doon gis Sénégal tout le temps wax ji dafay dem di dellusiwaat ci politiciens yi politicien professionnel mosula signé contrat de travail mosula liggéey mosula am nangam ak nangam te pourtant am na lii am na lii am na lii looloo tax bi ñu demee ba ay 2013 2014 euh, ñu créé loi bu nga xamante ne nag léegi dafay wax ne képp ku war a yore alal joo xamante ne bu ñu ko xayma ci at mi dina mat un milliard mhm. te ngay liggéey ak xaalisu askan bi deniers publics mooy xaalis boo xamante ne nguur gi moo ko moom bu fekkee li nga ci laal di ko dajale di ko gere maanaam def leen ci nii def leen ci ne bu ñu dajalee at mi yëpp dina mot un milliard ñu ne la yow bu ñu la nomee ñetti weer yi ci topp na nga dem mhm. of nag nga wax leen nii la sama alal toll lii maa ko moom lii maa ko moom lii moom boo amee ay bor sax dañ la ne na nga ko wax mhm. comme ça waa of nag xam ni ëllëg bu ñu xëyee suba teel ñu nommé la fii pendant six mois ou bien ñu nommé la pendant une année après dégg na yow yaa ngi am ay milliards yu jalaañoo di def yu nangam ak nangam dañuy xam ne ci benn at mbaa ci ñaari at mbaa diir bi nga fi toog ak la nga leen waxoon loolu munul ànd léegi nag dañuy am sañ-sañ waa nag ñëw ci yow léegi def seen enquête pour xam effectivement alal ji ñu dégg ak ji ñu gis par rapport ak la nga leen déclaré woon fan la jóge te dañ doon loo xamante ne yoon daf leen ko may. yoon daf leen ko may OFNAC lañ lañ koy OFNAC lañ lañ koy lañ mais kon bu ñu déggee un peu li nga xam ne moom nga moom wax y a des personnes yoo xam ne vraiment sont assujetties ci li nga xam ne moom mooy déclaration de patrimoine bi les candidats bokkuñu ci bu ñu ñëwee le cas du président de la République parce que yaa ngi naan OFNAC mais je pense que bu fekkee président de la République c'est loolu mooy loolu mooy loolu mooy li nga xamante ne loolu la loi bi wax dans un premier temps. bu mm. fekkente ne nag léegi dañu ko casualiser c'est-à-dire que dañu jël cas. muy kaawu par exemple ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy gën a fës mbaa comme comme euh, les candidats là mm. ou bien ni nga benn camp bi di ko waxee Amadou Ba na wax nit ñi na def déclaration de patrimoine na wax nit ñi fan la jëlee alalam loolu kenn du ko laaj nit. Mm-hmm. parce que loi daf ko def ba pare loo xamante ne loi dafa wax nii euh, nii ak nii ak nii la koy defee yow mi nekk euh, benn simple euh, citoyen mm-hmm. sujet de droit amuloo pour di obliger nit ñuy def loo xamante ne loi ni mu ko waxee du noonu mm-hmm. par exemple yow am nga oto oto bi nga ne sama oto bi motor bi dafa fort dafa def ni am doole mun naa développer deux cent quatre vingt kilomètres euh, à l'heure euh, donc en soixante secondes ngeen nekk ci kaw tali bi autoroute bi nit ki ne la comme yow loolu sa oto mën na ko te waxoon nga ko yow won ma ko fii nii ci kaw autoroute bi mais boo ko defee ñu daaneel la ça veut dire que dañu lay wax ne limitation de vitesse fii nii c'est cent dix kilomètres heure fële aussi dañu lay wax ne la nit ki dina ko def. Mm-hmm. donc soxlawul nga yàkkamti. nga yàkkamti nga yàkkamti. Mm-hmm. pourquoi dafa am leneen loo xamante ne aussi dégg naa ko ci wax bi. Mm-hmm. mu am lu nga xamante ne dafa waroo. parce que bi mu waxee ne amadu Ba na def laaj leen ko fa mu jëlee xaalisam na def. déclaration euh, patrimoine am. dañu ko ne ko de toutes les façons bu faloo dina ko def mu ne non non non parce que bu koy def dafay loolu ce sera discret dañu koy nëbb nanga na non c'est une erreur. le président. le président de la République. Sa fait sa déclaration de patrimoine devant le Conseil constitutionnel. Mm-hmm. qui le rend cette déclaration la publique. article 37 de la Constitution et c'est c'est dit clairement dans de la Constitution. mm donc soxlawul nit ñi di di sonn ci cas yu mel noonu. Mm-hmm. loolu moom moo tax ma ni. léegi nag stratégie de communication. Mhm. ak seet lan moo war a mun a galgal nit ki. Mhm. nga teg ko ko pour mu daanu. loolu la looloo tax moom ci boppam basiiru Diomaye Faye boobu noonu. Mhm. nit ñi wëlbatiku nag ni ko yow na nga leeral sa diggante ak suñ kilifa diine yi. na nga leeral sa diggante ak Touba. na nga leeral sa diggante ak Tiwaawan maanaam suñu tarixa yi parce que gëm nañu dégg nañu ni yow gëmuloo tarixa gëmuloo tarixa yi donc tu es un salafiste loolu moo andi problème <laughs> loolu nit ñi ku nekk dafa am loo xamante ne moom ngay galgale nit ki mais nag bu fekkente ne galgal boobu yaa ngi koy dugal aussi yal na doon dëgg mu nekk mu nekk de de bonne guerre comme ni nga koy waxee sànq donc dañoo nekk ci ci adversité mais ñu respecter li nga xam ne moom mooy moom mooy les règles mais un peu en tant que en tant que juriste tey ji bu ñu jëlee les candidats ci li nga xam ne mooy présidentielle bi est-ce que c'est est-ce que mën nañ jàpp ne balaa ñuy dem élection présidentielle war nañu mën a def li nga xam ne moom mooy déclaration de patrimoine pour plus de transparence wala wala wala jaru ko non moi je suis juriste euh, et je suis formaliste mm-hmm. man wàllu yoon euh, lay jàngale. damay wax ni li yoon santaane. ni mu ko santaane nañu ko defee noonu. de toutes les façons bu ñu la faloon tey premier ministre mbaa ñu fal la ministre te gëm naa ni Amadou Ba bi mu nekkee premier ministre. def na. ci trois mois yi ci topp. déclaration de patrimoine. foofu professeur dinañ fa ñëw parce que y' a aussi l' effectivité OFNAC aussi ak li nga xam ne mooy la déclaration de patrimoine c' pas tout le temps effective dañ koy wax mais est ce que exactement ça se fait au niveau de l' euh, au l' OFNAC. voilà là pour avoir euh, la réponse très certainement il faut que waa OFNAC wax ñu ne. diw def na diw deful diw def na diw deful. mais ci ñoom ci seen mission dañ leen wax ne déclaration patrimoine boobu noonu. Mhm. su fekkente ne nit ki def na ko yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci biir nag mhm. te am gis-gis dire que am ngeen connaissance de la déclaration yéen amu leen droit tudd ko amu leen droit wax ci parce que c'est une obligation de réserve bu nga xamante ne de secret professionnel boo xamante ne dañ secret professeur cest à li nga xam ne moom moo nekk ci déclaration de patrimoine bi ak la personne cest à li nekk ci déclaration de patrimoine on peut pas public mais la personne on peut rendre public ne telle personne telle personne telle personne def nañ li nga xam pour man. oui ça veut que tout ce qui est tout ce qui est de la déclaration. Mmh. de patrimoine dañu la wax ñu ne ki nga xamante ne moom moom moom alalam. Mhm. moom am na sañ-sañu déclaration bi mu déposé OFNAC. Mhm. am na sañ-sañu mu def ko ci réseaux sociaux yi. moom mi nga xamante ne moo ko moom par exemple ñu ne amadu ministre la premier ministre la président de la république la nga dem nga def sa déclaration de patrimoine nag nga génn jox ko sa cellule de communication ne publier leen ko yow am nga sañ-sañ boobu mais waa nag ñoom mm-hmm. amuñu sañ-sañu wax loolu mm-hmm. mooy que ñoom déjà bu fekkente ne saisir nañu leen rek xam nañu li xew ñoom dañu ko war a denc parce que nag déclaration de patrimoine aussi nekkul cravache bu nga xamante ne dañu ko def pour que nit ki nangam ak nangam dañ koy duma ou non non c'est parce que dañu nekk ci ay réew yu nga xamante ne sàggan bi dafa xaw a bari ci ni ñuy gérer alalu mhm. réew am ñoo xamante ne dañ leen di ger mu dema dema dem ba nga xamante ne yow da ngay jàpp ne ger yoon la yow sa lépp jaar na yoon mais ki nga ko seqal ne du def li mu war a def parce que amuloo foo jaar mhm. loolu noonu la ñu bëgg xeex ba nga xamante ne bu ñu jëlee ay nit nag jox la responsabilité bu kawe mhm. bu tollu ba ci président de la république ngay gérer ay trésor di gérer donc di ordonner ay dépenses ay recettes la

vous pensez que vraiment donc ce travail se fait de manière rigoureuse aussi tu sais euh, au Sénégal mhm. bu fekkoonte ne ni ko ni ko nit ñi di waxee mhm. c'est-à-dire que diw dañ ko war a contrôler diw dañ ko war a contrôler diw dañ ko war a contrôler bu fekkoonte ne ni ko nit ñi di waxee par exemple noonu la ko defee mhm. Sénégal on au moins cent mille personnes waaw au moins personnes yi nga xamante dañ leen di dugal donc ci affaire bi su fekkee da nga jël parce que Sénégal ak tu sais que Sénégal ak Belgique ñoo yem nombre. Mhm. Sénégal mille personnes la ñu ciblé Belgique 12000 personnes la ñu ciblé foofu noonu. boo demee ay France ay 8000 personnes la alors que ñooñu. ñi nga xamante ne war nañoo mën a def liggéey boobu noonu war a mën a def déclaration toll nañ ci ay million mhm. alors que fii Sénégal ñu foofu noonu. ce qui veut dire en clair donc que euh, nag euh, bi ñu ko jox diis na. buñ la joxee bu dix dañ la war a jox ànd ak li mooy xaalis ñu jox of nag sañ-sañ ba xamante ne dafay agir comme tribunal parce que boo xoolee réforme bi loolu la mm. dañu ne léegi waa of nag am nañu droit ñu jóg ñu poursuivre seen bopp nit directement sans jaar tribunal mm-hmm. ñu jàpp ne yow mii ni Amadou dénkoon daf nekkoon nga fi ministre mm-hmm. pendant par exemple six mois mm-hmm. six mois yi weesu ñu dégg mbaa nit wax leen loo xamante ne moom daf ci am firnde parce que nag aussi dañ ko def ba nga xamante ne képp ku nekk Sénégal te nekk sénégalais am nga possibilité saisir leen. saisir am nga possibilité saisir leen déjà yow boo amee caractéristiques yi nga xamante ne maanaam nit ku normal nga. war nga mun a bind lettre dem ne leen Amadou mi moo fi nekkoon ministre nangam nangam. mais gis naa ko jënd na benn hôtel bu nga xamante ne 5 milliards lañ ko ko jaayee. Euh, réforme euh, dafa war a defaraat euh, hôtel bi entrepreneur bi ko war a defaraat nee na daf ci defaat cinq milliards et tout ça alors que moom 6 mois la fi nekk ministre. yow Sénégalais am nga sañ sañ sañu nga def loolu. Mm-hmm. nag dañu ko jox moyens humains yooyu noonu moyens juridiques yi mooy que nag mun na la jël sax mu placer la en garde à vue. en garde à mm-hmm. léegi aussi am na un parquet financier. Mm-hmm. moom mooy procureur bu nga xamante ne. Mm-hmm. ci loolu rek lay liggéey. te xaalis bi bu fekkente ne dafa nekk crime économique. ay juge d'instruction yoo xamante ne ñu ngi nekk à la disposition le président de l'OFNAC mën na leen a jox liggéey bi ne leen defal leen ma enquête ci diwoon diwoon diwoon foofu andi na un peu de problème parce que jëm gis nañ aussi la justice de l'autre côté tribunal aussi ñu ne li nga xam ne moom mooy la séparation des des pouvoirs OFNAC nekkul li nga xam ne moom mooy benn tribunal donc warul mën a am sañ-sañ sañ-sañ boobu noonu yow sa simple appréciation professeur cas de figure il y a ce que l'on appelle vision du travail à la base mais mënuñu yem ci euh, définition basique boobu jamono day tollu xamee il faut que nga am ay doxalin yu bees te bokk na ci doole bi ñu jox OFNAC ay décisions yu nga xamante ne décisions yu am solo la parce que xam nañu yoonu justice ni muy yéexe léeg-léeg gis nañu affaire yi nga xamante ne ñoo nekk devant les juges d'instruction ni muy baree léegi la fet que ñoom ñu jox nag possibilité wu attaquer le plus rapidement possible arrêter la personne en faisant appel aux forces de défense et de sécurité woote léegi nag yóbbu affaire bi ci benn procureur boo xamante ne mun na xool mu seet donc ay euh, day ubbi instruction et tout cela loolu dafay gën a fluide dafay gën a fluide dafay gën a yomb kë bu fekkoonte ne dañu jël rek affaire tribunal ni muy doxe ku nekk xam ne tribunal dafa dix dix dix donc le fait que ñu def réforme bi nii je crois que ñi nga xamante ne dañu bëgg lu yëpp amuñu ci benn problème. pour une question de transparence mën nañu mën nañu nangu état de état de fait boobu je pense que ne temps bi ñu impartiroon professeur mi ngi mi ngi sa à sa fin. ñu ngi jëm ci élection yi dans quelques quelques jours wala presque sax suba je pense que danañ mën a def li nga xam ne moom mooy clôture li nga xam ne mooy la campagne électorale lan ngay sànni ci li nga xam ne moom mooy Sénégal mais aussi les candidats ak ki nga xam ne vraiment moom moo fi nar a ñëw succéder le président Macky bon ni mu leeree je m'excuse ah si ça dérange vraiment Amadou Ba la ñuy xaar donc comme Amadou Ba la xaar moom far waay bon oui d'accord c'est bon parce que quand euh, bu fekkente ne dugg nañ ci biir roq bi fii nii boo ma nee ngay votel dama naan Amadou Ba laay votel y a pas de problème mais comme li nga xamante ne dañu koy wax aussi xam nga mënuloo fi toog aussi di wax ne diw bu nekkee président te du nekk président léegi ki nga xamante ne moom mooy ñëw nii te ñu yaakaar ne mooy Amadou Ba bu fekkente ne yàlla ànd na ci amul xaar suba amul je ne sais pas temps de répit cest dire que ni mu ko waxee bu fekkente ne dafa def prestation de serment ci suba gi ngoon gi dafa war a liggéey bu ko defee ci ngoon gi bu xëyee suba tel dafa war a liggéey waxuma la jubilé te aussi ñi nga xamante ne quand ñoom ñoo koy fu yóbbu foofu j'espère que ñu fi nekk di tàccu ak di fecc bañ a euh, bañ koo wax mu liggéey te xam na li koy xaar mhm. donc il faudrait que la les préoccupations de sénégalais mhm. mooy li nga xamante ne moom la sénégalais di jooy mu yow muy may muy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu tane mhm. ak ñi nga xamante ne ñun ñoo leen tane ñooñu il faudrait véritablement donc ñu gis seen bopp ci doxalin bi nga xamante ne président bi ñëw moom lay def beneen bi ci topp mbokk yi xarit yi gërëm nañ leen sant nañ leen yéen ñu taamu seen télévision 7TV ma am mbégte mbokk yi te fii ngir dégte leen xibaaru digg bëccëg gi tey nag yemoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars loolu nag ci weeru wolof bi mu ngi méngoo ak euh, fukki fan ak benn euh, ci weeru euh, koor gi di charu ramadan ñeen ñi ñoom ñu ci fukki fukkeelu fan beeg ñaar di leen gërëm mbokk yi di doore xibaar yi ak li gën a li nga xamante ni mooy li gën a fës ci bopp bi bokk na ci wàllum élection yi nga xamante ni réewum Sénégal mu ngi koy dëgmal ëllëg ci